boobu xam naa ne da ngay doog a oto 206 attention débutant nga ci def di ram ndànk di def raay di fay nga doon mu ma fajaama taxaw du ma ko fàtte mukk souvenir indélébile la ci man li tubaab di wax ndax man ku ma defal lu baax billaahi wallaahi tallaahi yaa ma moom ku ma defal lu baax lépp for may xëy ma la for bi dama am lu ma neex ndax olof dana kuy ñëw tafa soo wëñ ci sëriñ bi moros ma jagat bi waxuma ci mbooloo ñu am dara yaa koy am ma may la waaw am am kooku suñu yaay la ndax fecc mbir bu neexee day jaar teew ca mbax di ñëw Fallou ñu ngi lay jaajëfal bu baax ndax tey bu ñu tuddee sa doom seen tubaab xaali ma Moustapha ba lay fekk di suñu wàcce la am mu dul ati nii bu rek ci man gaboon jaar yi mbar rek waaye yow nga seen ñu sama Ibrahima ndaamal la ca daaru sëñ Moussa Ka nee na bu ñëpp dem biiraani ngir ceeb bi ak jamono bi ñu ne woon dinaa la ko waaye doomi jaara ko su ma fi jëlee loolu. ni ci jublu bi daal loolu yàpp ngeen ni ci Mbàkke bari sànq ma sànq nan la ngay jaay mu jaay ndax dafa mën a daal ñu daal di koy jëlaat mu rey Ndakaaru suñu taalu boo xale ne ñaari guddi Ndakaaru la wax te du wax tudd moo wax Ndakaaru isaaf la bu baax ndax nit ku baax la le bien fait n'est jamais perdu maa ngi jégalu bu baax. teewul xam nga teewul lan lan ku ne di ñàpp di fii si xanaa nan ñu ndey wax. ñu ngay taal ba sëñ Bamba lu tax mu tax waaye fii ay defe yaa ñoo fi ne dañu soxor parce que xam nañ ne boo. mais yàlla gën a comprendre. da ngay xool ci ay bët dina jàng ci ay bët. kenn naanoo sa néeg bi dara doon sa jëkkër ji indiwul ji bi nga def ko benn wax sa jëkkër ji indiwul ay ji nga def ko. waaw waaw waaw non ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw dama kii day dem moo tax dina ma jox aywa ñu dem amago ñëw ñëw man néew ma fii di seen ñëwal nii waaw waaw waaw seet si seet ma waaw dem màggal ci kaw weer tey kenn kenn bokk Thank you.

Merci beaucoup. yow ku bàyyee sama sama doom nga sama doom. mais dama naan. ak man yéen lu mu am am am ci da koy bàyyi ba gis ba tànk di taxaw ba ko rajo di nga xam ni nga doon def lan amoo gàcce xam ni ma la juree xam ni ma la amee ma ni ma toppee gis ni ma bëggee gis ni ma yërëma yàgg say ma ak sa ku ci nekk li may waxee yaay dama koy yërëm dafa ñëw fekk ma sama néeg dama yaay ak sa passe loolu dama ko am ci lan la mu ne ma yaay dama doon déglu ñu naan dama bëgg a dem fii ma ne ko waa léegi mu ne ma sama passe tey ñaar yooyu dana ci bari waaye am ci ñaar jigéen ñaar góor milliardaire yi milliardaire yi milliardaire yi yàlla bàyyi leen a seen njaboot yàlla bàyyi leen a seen waajur yàlla bàyyi maa yéen mais yow ñu ngi dina programme boobu yow xam naa yow xam naa seen fan bu ñu ngi daal ñu déedéet yaay lu ma xool lu ma xool lu yow wax lu ma wax lu yow wax kenn xam yéen ñu doon yi xam nga ko naa la fii moomoon nit ñi moomoon nit ñi ma lay ñaan dégg naa leen dégg naa leen

Go, go. nangu leen ñaan. lecteur bi sama wax. defe naa ni ak cant tey daf moo war ñoom ñëpp. donc bii mu jël bopp bi mu jël bopp bi nga waaye. waaye ñun dañ ma bàyyi ak ñoom lépp lu mu si dund dañ ma bàyyi ak ñoom waaye kees bi nañ ko. maay xarfal maay contrôlé lu ci waay def sa ne bu ma la ñëwee génn na kon tey bu mu taxawee di leen sant di leen gërëm ci seen yàlla nangu leen dellu nangu leen ñaan ko dugal ci soxla yëpp yóbbu ko booy yóbbu ko. non yéen tamit xoolal ma ko. damay jóg. damay ñëw damay jóg de. bu sëñ bi duggee damay jóg. bu sëñ bi duggee damay jóg. am sa waay. amiin nangu leen ñaan wàññi leen wax ji li ngeen ko bañ a naqari ci xale yi yal na leen yàlla defal taw fexe tey si dafa mën dafa la wax léegi nag sëriñ loolu rek moo ci def suñ fan bu amal li ñuy jëkk ñëw fii Dakar ci saayu xale yi ku burul burul maas xamuloon burul maas mu joxul lépp maas moo tax tey bu mu demee ba maas jëloo ko ni mu ko delloo ba tuddee ko seen fan xam naa na mu dem waaye nag lii bu Alaaji Birame wax lii ku mu yëngu ku mu yëngu ci yow doomu neen kenn ku ñaan del déglu del xool Feeling Dakar